Autre chose, par rapport à la, à mort de Sadio, Salif Sadio, quand on est une presse responsable, si on déclare mort ou donc on vérifie par balance pour publier. Mm -hmm. tout ça, ça entre dans le cadre de la manipulation et de la désinformation pour faire des choses. Parce que la stratégie adoptée, bien que nous l'avons adoptée, on nous a vendu que Ousmane Sonko a quitté Ziguinchor dans une voiture banalisée du jaar Diar bi yoonu Tamba bi lay jaar pour agsi accompagné de garde deux gardes du corps. ku la jaay dans sur sa page Facebook. Ousmane Diagne. mooy mooy ki daw. Ah. c'est-à-dire. ah kooku ay waxam yaa ngi ci bàyyi il est très proche du gars. c'est-à-dire pourquoi on nous donne cette information non nous on parle de la presse. j'ai dit je ne parle de la presse je ne parle parle de la presse. c'est-à-dire ah, quand décès décès décès ko génne. Euh, damay ñëw damay ñëw damay ñëw quoi cest dafa am ñaari fee yu am on nous du décès décès de Salif Sadio. et c'est un comportement irresponsable de cette presse là parce que vérifié information bi ñun ba information bi génne séance tenante lañ ko vérifier xam ne amul. Hmm. dafa duggoon ci manipulation dafa am lu ñu ci jublu quelques minutes après on nous vend qu'il a quitté Ziguinchor bañ ñuy jaay qu'il a quitté Ziguinchor xamoon nañ ne mu ngi biir bureau lan lañ ci jublu si ces communication la moo tax ñun xamoon nañ ni il faut manipulation bi bari pour loolu mais situation bi jaru ko